اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد naa fi ngi sant bu baax ci li am di ñaan mu dolli ci li ñëw xam ne ñu ngi fuglu bi si xatm naa fi léegi ci àllarba ci guddi ñu ngi digal mboole mbokk yi ñu gën cee góorgóorlu li baaxoon démb rek moo baax tey te li daan yokk nit ñi démb moo leen di yokk tey te bu kenn wax ne jamono ji dafa jafe wala jamono dafa soppeeku bu jafee sax da ngaa war a def ngir yàlla yombal ko kon nañ góorlu ci bis boobu te xaw ci sunna la boo xam ne bàyyi moo ko fi bàyyi te bàyyi du def dara loo xam ne rek ci si yonentu bi la sa sallallahu alayhi wa kon nañ góorgóorlu ci bis boobu ñu ngi ñaanal yàlla nag ñëpp yàlla dafa leen tawfiq bañ mën cee bokk mën cee def seen alal yàlla fulal leen ko fii ci àddina fulal leen ko gis ngeen anas mii nga xam ne yaayam moo ko dénk yonent bi ne ko sa bëkk néeg bi yonent bi bàyyiwut xiiwi àddina mu ne lu may ñaanal na ko ko bàyyiwut xiiwi alaxira itam lu may ñaanal na ko ko anas deewut lu may dund téeméeri at ak dara ba gis téeméeri doom ak ñaar fukki doom ak juróom-benn yoo xam ne moo leen jur ci ndiggam sët bokku ci toolam bu nit ñi meññilee benn yoon moom muy meññile ñaari yoon ci at mu am téeméeri at mu xam ne kon lam ko dig ci aljanna itam bu demee dana ko fekk foofu bàyyi itam nañ góorlu ci ndigalam yi ndax moom amul lenn lu mës a oote pour ne nañ ko defal moom mës a oote na ñëw leen ñu def compagnie wala di dajale ay xaalis di ko def ci boppam li muy oote mooy def ci yàlla rek te waxoon na ci maami cheikh mii ti jiite rabbaani ba mu ko bindee leetar ne woon na ko gërëm naa la gërëm naa sa doom yëpp te rabbaani boobu mu ngi jaaxle ndax boobu dee mu ngi taxaw ci kanamam mu ne su dee ca Mauritanie nañ ko indi bàyyi jullee ko su fekkee ne mënuñ loolu bàyyi na jóg wala bàyyi na ñëw bàyyi na jógee fii de na jullee ji ko su fekkee bàyyi mënta dem nañ ko indi bàyyi jullee ko bàyyi ba ko tontoo ne ko inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu ne ko jàngal mu mat ñooñu malaaka yërmaa dañooy wàcc ci ñoom bàyyi ne mbir moomu ngay tudd nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy xaar mooy dee de bàyyi moom mësu koo dee mësu koo tiital waxtu bu nekk rek mu ngi ko emaleeg ñàkk ñàkk dee ak dee la emale woon waaw ndax dégg nga ko sax ci ñaan mu naan yàlla ñu fi yàlla faat ci bis bi gën ci suñuy bis ñun bis bi gën ci suñuy bis suñu ko a toog fii waaw moom nag nee na yàlla na ko yàlla faat ci bi gën ci ay bisam mu ne rabbaani na ko wan na ko daal boo ma jiitoo foofa doo fekk lu may li nga bëgg su fekkee maa la fa jiitu moom doo fekk lu may li nga bëgg sëriñ bu mel noonu ku ko am lu mu la digga rek war ko topp waaw te ñun kooku lañu am kon nañ góor bu baax yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu defal tawfeex yàlla na yàlla demee musiba mi yëpp yàlla buñ ci gis kenn sax koo xam ne dal na la da nga dëkk fii yàlla na ko yàlla demee ci Sénégal yàlla na ko yàlla demee ci alamul islam yi yàlla na ko yàlla demee ci àddina bi lépp doomu adama yi fekkee nanga ciy tawar rek bàyyi waxoon na ne moom bët bi muy xool doomu aadama nit du ko xool ba doomu di ko bañ moom ñëpp la yërëmoon moo tax yàlla mi nga xam ne moo xool nit ki moo bind nit ki ci nam namam daf ko bëgg moom moo tax mu bind ko kon nag waxtoo bañee nit rek bañ nga fi yàlla mm. waaw te su boobaa booy ma nga seetaat sa bopp mm. salaamaaleykum jërëjëf mbokk yi kon mu ngi noon Maulana Cheikh al Islam Al Hadj Ibrahima Niass Baye euh, bu ñu waxee rek saa su euh, imam Cheikh waxee sa xel dem ci yonent bi sallallahu alayhi dégg nga nee na jikko yonent bi rek moo nekk ci moom euh, moom imam al akbar kon xadis bi jeex na mbokk yi ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax wax dëgg yàlla ñun tim àndoon nañ ak yéen ci direct yi ak depuis fukk ñaar fukki fan ak ñeent yi ñu ngi leen di gërëmaat di leen sant jërëjëf Al Hadj Libaas mbay moom mi nga xam ne moo jàpp si liggéey bi euh, moo fay nekk toujours 14 heures euh, ñi ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant jërëjëf Serigne Gueye jërëjëf tim euh, mboolem ñi nga xam ne daal ñoo jàpp si liggéey bi gërëm leen sant leen baax mbokk yi kon guddi lañ leen di jox rendez-vous incha allah ci naafila gi ñu yendoog jàmm allahumma salli wa sallim ala wa mawlana muhammad وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم